ak Fils de Liru mbokk yi ñoom ñaar dañoo war a jëflante ñoom ñaar dañoo war a jàmmaarloo ci le 26 mars bi nga xamante ni nii mooy mooy weer bi ñu nekk daanaka ci diggante ki nga xamante ni nii mooy Cheikh Tidiane Niang ak Kaaw Kaaw Kaaw Cissé numéro 2 mbokk yi. ñoom ñaar ci la war a laale tey moo dalal leen fi bëgg waxtaan ak ñoom ci làmb bëgg waxtaan ak ñoom ci luñ jóge ak ci li ñu naan a jëm ndax mbokk yi combat bi nekk na combat boo xamante ñoom ñaar bëggante nañu ñoom ñaar xiifante nañu ñoom ñaar namante nañu ma bàyyi leen ñu nuyoo ñu doog a wéyal waxtaan wi euh, fii sa naa la. maa ngi lay fay xoosu bi la bisimilah. ndawal yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba. maa ngi lay fay bu baax baax di bëgge waa Wassare Lamb di bëgge ñu ma fekk ñëpp di bëgge sama adversaire bu baax a baax ndax amaana boo ma mayul woon loxo du ñu egsi fii. dalaa may loxo. waaw daf ma may loxo ndax ma ma rawee benn combat. moom benn ay naataango ngeen ngeen. mais moo ma jiitu si làmb. Hmm. waaw. ngay bëre koo xamante ni moo jiitu ci làmb. mu nangu may la loxo lan moo la war. lan moo war xanaa fi ma jaar ay moroomam moom mu ñëw jaar fa dañoo nekk ay xale am lu toog seen ginnaaw ñu am luñ bëgg tamit looloo waral mu may ma loxo ma jël. tegal foofu sa baa ma ñëw fëgg la nuyu naa la. ñu lay fay Ouzin di wax jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jaaraama Sidi Birahim Fall yaa ginnaaw bi ñu sante ñëpp àdduna ñëpp. Mm-hmm. di santaat Sénégal di gërëmaat samay waajur ak kullu waajur di leen wax yàgg leen fi seen yàggaay am nañ jariñ di sant sama sëriñ sëriñ Cheikh Roxee Fall borom digal Fall bàyyi maam Mbacke Fall bàyyi maam Samba Fall di ko wax Fall yàgg fi lool Fall yaram Cheikh Fall bu baax di sant fukk pencax ñaari. Mm-hmm. lebu gépp di leen sant yéen waa wasaare ku su mel ni yow jëlee yaay booyee ñëpp. Mm-hmm. di sant waa kër maam Baye Laay ci appel bi ñu waaw di leen wax ne kontaan nañ lool. Mm. waaw lislaam gën na yëkkatiku. dëgg la. di sant ñëpp di gërëm ñëpp daal waaw. booy bi nee na da nga koo may chance. non du may chance sax kii ay moroom lañ defuma fi loo xam ne defu ko. Mm-hmm. yee kon du may chance moom daanaan la garmi la champion la te doomu gaynde la moo waral ma jógo du question de may chance. xam nga ko. xam naa ko bu baax. xëy na moom moom ma xamul rek mais moom xam naa ko bu baax a baax bu baax a baax. bu baax xam naa ko bu baax. nan ko xamee xam naa ko bu baax ki dama xam bu baax. buntu këram laa entraîné. moom xam na loolu. est-ce que xam na loolu. xam nga kii. mbër ko xam moom. mais nag man man dafa am loo xamante ni defe naa ne Fatou lan la ñuy wax devise la ñuy wax ah man devise moom mooy euh, na day li naan day neex day yëngu. loolu mooy sama devise bu ngeen ñëwee nag ku ci nekk di raay raayal sama man dafa man sax damay xaw a triste man bëgguma loolu ci palaatu. vraiment fii luy yëngu amu fi de sedd fii kaani lañ fiy teg ku ne di seex di macc ah, mu naan taj kon defe naa ne kon da ngeen da ngeen. barki Serigne Cheikh Fall dañu nuyoo nii rek. waaw. <laughs> waaw waaw Kamal. waaw. <laughs> est-ce que xam nga ne sa bundu kër la doon entraîné. waaye nay entraîné sama biir nekk ba xam. kii ñoruma de.

ñu ci bàyyi parce que loolu foo ñu leeral ko bu ñu déggee fi sa liiru ñu ci bàyyi dañuy yaakaar ne liiru jaan menn moom la ñuy wax wala mu demee noonu. liiru jaan boobu sama papa la tuddee boppam sama papa mooy liiru bu mag moo nekkoon Fass. ok waaw gis ngeen mbokk lii da ciy baax ñu koy leer ndax man mii di wax ak yéen sax yaakaar naa ne liiru bee la tuddee boppam moo tax ñu naan fils de liiru man loolu laa foogoon. noonu la demee liiru jaan bu mag ba mooy sa papa. ok. te kii moo koy xamal moom li mu yaakaar. Mhm. loolu amul de. boo ko mënee mu ñëw ba sama biir néeg ma dalal ko sama biir néeg mu entraîné bu paree mu ñibbiwaat bu la 26 ma jàpp ko daan ko si kàttanu borom bi loolu lañ seeg seeku ñu leneen man ak moom. booy man am na lu ma seexayee lu gën a garaaw man dama lay ba noppi daan la. danga koy. dama koy ngëj ba noppi daan ko. dama oh. moom dama koy noox dóor dóoru metti. déedéet yegg ci yegg ci jure barki Serigne Cheikh góor dama bëgg nga déglu ma rek. non non waaye ah man maa <laughs> ma sama muslim de. fii li nga yaakaar laa ma dama la déglu nga ma déglu dama lay door mbaj de déglu ma xool ñëwal bu neexee nga doole du ñam Iba Mar yow xam nga bu baax ndax ñam naa Iba Mar yow xam nga bu <laughs> baax yàlla musal suñu yi ngeen bëgg dañuy jure dañoo jure ñun jure lañ xam muy wax kii na ñëw ñu jure muy benn affaire naan papaam da ko ngénte ba cinq heures dem takk ngeen sa papa am na temps pour ngénte la sax ñu ngi koy nuyu moom borom baax ndax mu ngi formé ay xale mais man sama papa bi may ngénte neew fi dafa yónnee xaalis sama papa gerkat la de. ah déggoo ma la buum laa de. da nga bëgg dañoo lijjanti buum ñun. ñun daw ñu buum Cambérène lañ. benn ay ngemb takk ngemb bëre nga wax. bëre ah, dafa yomb ñëw benn cinq boo bëggee man ak yow ñu juree nee nga da ngay juree man ak yow nañ juree. eh dañoo juree loolu par force la nga. ñu teg suñu yow ñu xool booy nga déglu ma yow sa reliquat dara ma fii. yow loolu nga yaakaar. ma dóor la mbaj boo amul chance naa la dóor mbaj léegi balaa émission bee dem da ngay dóor ñëwal dóor xool Bamba. bu may wax dee ma déglu yow fii gars yi toog nii moo tax de ba ma wax dee ma déglu nga naan may déglu yow ay kan moo lay déglu. yow xaaral agression yi ma lay def xam nga kii du deful dara dañ koy tànnal yoon. fii du yoon bi seggal ay ay dañ tànnal ay adversaire fii du yoon. bari na ci làmb de des nga am sa mbër des fois xaw ko kiiwal yooyu ko booyu nooy. kii dañ koy tànnal yoon. ngor ba tey tasanteeguñu ak mbër. Eh, booy bul siis dañ lay tànnal ah. yoon nga naan may nii yoon bàyyi ko sa bul ma wax champion man du ma champion. ma ay nii. man champion laa bëgg doon du ma champion. dara dañ lay tànnal yoon mais bàyyi dañ may tànnal yoon. li ma la xam nga ko bu baax. léegi li ma bëgg a xam mooy. yow de Seydina Muhammad xam na ne yow bu arbitre génnee suñu diggante mbër tegoo tànk tekk si ginnaaw. Cheikh Modou Moustapha Fall xam ne. yaa yaa dóor dóor ba ba nga am dara loo bàyyi sa ah, ngeen. yow yaa may aniyerloo yow. waaw baax na. baax na. yow nekkul yow yaa may aniyerloo yow. waaw ok ba bës ba. fëgg la su ma déggee ni ngay waxee dafa mel ni boo ko xoolee da nga koy xaw a koy maanaam da koo da nga koo sous-estimé da koo xaw a man du ma xeeb doomu aadama non mais mais mais des fois nga gis nga wax cousin maa la wax lu mhm. man du ma xeeb doomu aadama si fànn yëpp mhm. man làmb daf ma jaral man làmb daf ma jaral bu baax a baax a baax a baax te liy topp sama ginnaaw dafa yéeme macha allah yow duma la wax xam nga loolu mhm. man li may jënd si xaalis booy jënduñu ko. seeni grand frère sax jënduñu ko. waxal li nga xam yow. booy ay trois bolok ngeen di jënd. waxal li nga xam laa jënd deux booy waxal li nga xam laa la wax. xale nga déglul rek ma wax ak waaye jógeel fii nga am xale xale dama am. dama déglu may wax ak yow bu doon xale doo lekk sama avance laa la wax nga naan ma ay xale. demoon noonu kii c'est que mooy li ma ko xam nga sànq wax na ne trois combats la ma reetaan. Mhm. dafa am lu may ree. deux combats. waaw mais du lépp la ñuy nettali si àdduna. mais am loo xam te ne faaw laa la wax fi nga jaar fi nga jaar bi taxaw. eh fi nga jaar ba combat bi taxaw laa la wax xam nga ko. fii amul luñ fi négocier Ouzin. moo ngi nii kii fi jaar ba combat bi taxaw moom xam na ko. daa kan moo bëgg combat bi ma la moom fi mu jaar ba combat bi taxaw moom xam na ko du ma ko wax. tontu lu jour bu ma ko eh, daanee. Eh, tontu bu ma la déggoolu la wax bu ma la daanee le 26 laa la wax. par force dinaa loolu fu ma ko teg. yaa may tontu loo yow Ousseyn laajaat ko question bi may tontu <laughs> boo ko tontu ah déggoo lu ma la. Mhm. fi combat fi mu jaar ba combat bi taxaw. bu ma ko daanee la 26. maintenant su ma dinaa la fa la combat bi jaar ba taxaw. ni ngeen waxee daa mel ni combat bi yaa ko gën a bëgg fii sa lii. non du ay question gën a bëgg sax. man dama man dama ne man dama nekk xale benn dama nekk xale. Mhm. am part si làmb. am lu topp sama ginnaaw lu bari loo xamante ni bu ma jugee Cambérène day jóg daaru ci bu day jóg. Mhm. li topp sama ginnaaw dafa bari. bir na Serigne Touba. kon man caaxaan waruma. booy ñaari gox nga fi wax na man Cambérène Daaru Cubb ba pare na man ay caaxaan waruma. xanaa déggoo la wax yaw borom fukki penc ak ñaari yow ay yow da nga ma ëppale si fukki penc dëkk yow. a nekk lébu maa la fa ëpp paare yow. moo yow Ngor maa la fa ëpp ay supporter. waaw yow Ngor dañ la. bi ngay simb ñi nga doon àndal. waaw yow dama nga déglu ma rek bi la ay zonaas la doon àndal. man bala la man ba léegi ma simb. man tapet nga laa la nga may bala doo bala bala doo am bala culture. man damay ñëw làmb ndeysaan. su ma bëreetee rek gars kontaan. yaa ñun loolu dañ ko man ba léegi bàyyi ma simb mais booy. li nga bëgg a expliquer tout temps nga doon toog a ñi nga nga nga nga lu feexlu moo la indoon sama gox feexlu toog naan ataaya feexlu moo la indoon sama gox man bañ na ko man du ma ñëw ngor dama bëgg nga déglu ma rek xaa déggoo man bokkuma caaxa yi ngeen nekkee man waxala man bandi laa de man barki Serigne Sefa tapper nga doo dara <laughs> boy bandi fere ngay wax tapper nga laaw doo dara xam bandi yow da nga xam ma agressé yow maa la wax lu garaaw mënoo ma agressé boy bi fa toog si place bi foofu du féex. kii xaw ma. yow Ousseynou yow ma booy. kii xawma ma. booy léegi bu dee da ngaa bu dee da ngaa yaakaar sama photo ngay jël di ko capter di laajte man ak man mbër yi nga doon bëreeg yam nañ bëreeg ragal de mbër tiki ngay bëreel. bon yaa ngi si YouTube sama waay dama dimbali nga ma ay waay yow da baax fi nga jaar laa la fi nga jaar. ñu may laaj. yow yaa man wëruma la xam naa ne bu baax nga doo dara. man tapet la man du ma la lijjanti ba combat bi taxaw ba tey. mais mais nag booy bi ñu muy bëreel des fois day daan ay jël yu garaaw. kan la fi daan. Ousseyn kii ah, bi yow kii kan la fi daan. seetaan nga ñi mu daan. kan la fi daan laa la booy xam nga kii lijjantiw ko bëgguma ko seetaan. booy mooy baxato yooyu rek booy iñaan yooyu noonu. yow booy sa nopp yi ku la xool xam ne iñaan may xool si moom laa la kii. nopp la xool xam ne góor yàlla la may góor yàlla muy ñafe may ñafe. Eh, man du ma góor yàlla de. man gaynde bàmba laa. këtt geen nga nga naan may nii. kanaara nga <laughs> te bu jour dinaa la ko waat ci biir géew bi bu dee góor yàlla nga li ngay wax dëgg la da ngaa mën a xeex. booy ba may bëree ba may. mbaj laa lay door léegi mbéjal nga ko mbéjal. boo amul sens. mbéjal mbaj laa lay door léegi mbéjal bu neexee nga doole. Ousseyn kii xamul ne bande lay waxal de. booy nu mu demee la rek am ay bande nu mu demee. ni mu demee la nga fekk jamono bi ñu civilisé rek. mais boo dëgg dinaa def lu mel dañ koy xaalal yoon. a ah, na mais fii du jaarukaay. ok léegi ñaata séance ngay def. trois séances laay dóor avant combat après combat man daa am lu mu bëgg dama bokk si làmb. sam papa dafa bay waaram ba jox ma ngemb ni ma demal bëri kon man dama war a bay sam waar daa am toog sama ginnaaw trois séances laay entraîné kii du ma yaa ngi bokk su bu baax. kii laa wax du ma téye lu mu yaakaar ko indi bu bëggee mu taxaw ñu xeex bay bëgg dee doo ko bëre. doo xeexam man da nga sañ. yow yow da nga sañ a xeexam man yow da nga baax a xeexam man bu jour de la nga taxaw xeexam man. booy boo xeexee man ma def la lu bu jour de nga taxaw xeexam ma dóor la nga daanu yow. nga door ma daanu yow ma kaawalo la yow. ñaata ngay def bu combat bi taxawee ak léegi. ndax man bu combat bi taxawee waaw maa ngi si entraînement yi maa ngi dem fajar géej. du ma daloo ba neex yow ndekki dem saal. toog ba ngoon dem écurie ba dongali waaw bëgg booy bi bëgg booy bi. Mm-hmm. xam nga ko moom moom daanaan la. combat bi xeex moo koy jeexal wala bëgg. combat bi mën na jeexee si lépp. mu ngi wax loo xam ne ñor na ma lool. muy lan waxu xeex. mais nag des fois ngeen toog ne dañuy xeex dañuy xeex ba ñëw ci digg gi. man amul suma ay naxante yooyu noonu amul suma làmba ju ma jureewul. ku jëyoo la man de da nga daw yooru. man damaa jure de. Ousseyn. man damaa noo samay combat bu baax. ah booy sa xeexu jigéen yooyu ay sànni loxo nii yow sa xeexu jigéen yooyu taxawal ñu xeex nga naan may xeexu jigéen xam ne ay maanta kaa def yow da ngaa baax rek ki lu muy xeex moom la xale yi di jigéen yi di xeexee fële dama ne la moom la xale jigéen yi di xeex booy sa xeex taxaw laa la sa xeexu jigéen yooyu boo nga xeexee ba Cheikh Modou Moustapha Fall si papier aluminium lañ lay laxas yow da ngaa baax yow maa la gën a wëyu maa la gën a xooli loxo téeméeri junne yoon nga di ngay nekk di wax rek xaar fa gauche droite bi ba xam da ngaa man du ma di mbër waa xaar fa gauche droite bi si kàttanu borom bi kii lijjantiw ma ko yi muy def man nekkuma ci yooyu. mais yéen ñaar xanaa dafa am lu nekk seen seen diggante ci suuf lu ñu yëgul ñun. ah déggoo lu ma la wax. kii fi mu jaar ba combat bi taxaw. dina ko wax bu ma ko daanee. <laughs> fëgg la nga jaar. da nga bëggoon ba booy bi. xam na ne de booy bi xaw ma ko woon sax. kii. waaw lu tax ma xam ko. As Cissé. As. As moo tax ma xam jëmm ji. ma kii maam Serap Fall. billaahi wallaahi wa taalaay As moo tax ma xam jëmm ji. damaa toog ak Jax. Mm-hmm. ñu waxtaan dénkante ay kàddu. Mm-hmm. ma dénk suma bopp maa ngi koy nuyoo passage. Asise muy toog. As xamal na ma am na benn boy bu nekk Cambérène. waaw day drainer ful. Mm-hmm. si laa koy xamal ne man du ma bëre mbër ñàkk mbooloo. mu waatal na ma ne booy bi am na mbooloo. te jàmbaar la. si laa dugg si bi xool booy bi xam ne kii jàmbaar la te am na mbooloo day drainer. ma ne ko nag yow loo def loolu la parce que dénk leen dénk sama bopp. Mhm. loo leen def rek loolu la. ko yi fa la jaar mais pour booy bi nii ma xamal ko benn affaire yaa yuuxu rek xëy na li nga gëj a gis ay caméra yooyu noonu moom nga gëj a gis. mais booy leer naa leer yàlla yow sa biir kër barki alxuraani karim ma fekk la sa biir nekk kenn yëgul doo yuuxu. yow la lu ma la laaj. nga génne ko si turaal bi ah, ma la. wax lu lay yow yaa yow yaa namm ah, caméra yow. man doomi lébu la ma. Ouzin kii gënuñu nekk lébu. nekk lébu man da ngay jéggi tali bi eh, dem géej sama gaale géej. booy déglu ma am ah, ay lébu booy. si kaw nga jógee wàcc si suuf teel rek. yow mi yaa war a tee yow. yow Paaga ma naa maa ngi nuyu au passage Valdo. Apaalama bi Valdo di bi muy bi muy bëre mbapat. Mhm. man maa doon toogal jëmm jee ci mhm. boobu xalaatuma sa dugg si laam. di ko ñaanal nag moog serpent dañoo am combat ke serpent mu war bëri le douze moom mu war a di leen ñaanal yàlla may leen ndam bu kawe kawe ak képp kuy doomu Cambérène rek boo am làmb mais kii di ko xamal moom dama ko xam te xaw ma. kon da ngeen xamante. non am na lu mu dagg day wax moom Valdo bi muy bëree Mbapat moo ko doon toogal. Hmm. man laaj jëmm ji moom ndax ma sañ bokk lii Mbapat wala déet. yéen ngeen bokk Mbapat. da fàttaliku am na benn Mbapat laa la wax. bi nga njëkkee bëre nga ne da ngay toog kii sa mbokku lébu la da koy xaar. lu ma la xam nga ko bu baax dafoo gën a jàpp. dool tapé. nga naan waaw. ba pare nga bëgg a weddi ne boo xoolee journée paaga man xale laa. waxuma ko bokkuñu journée de dem na ko mu laaj waa ji fu ñu bokkee woon journée. amaana sa waay dinaa leeral lu bëri. amul lu may leeral si yow booy garmi laa de. doo dara. champion la champion la doonaguma ko sax xam nga kañ laay doon champion. man lii laa yitoo lii fi naan parcelle. barki Serigne Cheikh Fall. yow da nga baax. si man la la làmb di weddee. ah si kàttanu borom bi. waaw booy nañ doxal rek. <laughs> la 26 yaagatul de. deux semaines la combat doo woo benn tere ji de. fa nga jugee kaw nga fa nga jugee. ah ma la kaw nga jugee dama ne la nga déglu ma fi. man kàmb ga laa jugee jugee wu ma eh, kaw ga. nga may kàmb kàmb ga laa jugee. si kaw daanu si suuf. taamu ay nii. lébu gee neex nga dugg si kaw bëgg a doon ak lébu. yow da ngaa neex ngom laa sant teyal ba ma fontoo. moo yow Samb nga sant. Samb joogal joogalaa Bamar joogali Musay jigéen man la borom ngor. borom yaay Binta Ba man maa la mun fuuf yow. nga man man damaa ragal sama deret ragaluma sama deret ngom laa sant. nga am ay ngom bu ñu di lebu. Samb nga sant yow. Samba Jogal Jogal ak Bamba dégg maa mun fuuf yaa Binta Bala tudd. yow da nga neex. yow da nga neex dama la yërëm dama la xam taxaw ma yow laa yërëm yow. Eh, eh, eh, foog la booy bi booy booy. kii dama la yërëm. non booy bi dugg booy bi li jënd na de. Ousseyn bu dee ginnaaw bu dee ginnaaw. ngemb ma la. bu dee ngemb kase. laa la du foofu. man may fi nga teg lamb ji du foofu. dama ne la kii du boromi tuur. fi nga teg lamb ji du foofu. kii daa ñëw ñu dalal ka mu lekk suñu ceebi lubu ceeb neex yi. bëgg hôpitalu Cambérène laa juddoo. ba la xool fa laa juddee ba ci démb moo njaay. sa nopp yi ma fontoo. yow da ngaa neex rek. gune ba ndawlaal ba ma fontoo. jógeel fii nga ma fontoo yow da baax hôpital bii barki dem moo njaay la fa laa juddoo dama la. nga naa ma ay. yow mun neex la na xare la dinaa jure te dina la na hmm. barki Serigne Bamba dina la ñuus. waaw bu arbitre prime nañ jure. nañ taxaw ñu xeex. loolu amul wax loolu yow bu ma yow damay jure. yow bu arbitre prime doo xeex ak man yow ba pare jure arbitre. ah déggoo ma la. yow bu arbitre doo xeex man. duma xeex ak yow doo xeex man. waaw ah, na lu ma la xam nga bu baax. waaw ah, baax na doo ko gën a jàpp la. mbokk yi gis ngeen ni lay demee ci jàmmaarloo woo ñaari mbër waxtaan ak ñoom ah ñu xas-xasloo parce que mbokk yi lii combat la boo xamante ni combat bu neex la diggante ngor la Cambérène Guédiawaye parce que Fils de Lirou mi may wax ni ah, xale la boo xamante ni su jógee waa Cambérène dañuy jóg waa Guédiawaye dañuy jóg lépp yëpp dañuy jóg surtout ba ngor tamit waxi nopp bu jógee waa ngor dañuy jóg ah waa ngor moom ku leen xam-xam leen ci mobiliser dañuy neexal maa ngi nuyu Siteu bu Ngor di ko féliciter ah, ci combat bi nga xamante ni ci la jógee ah yi nag ñoo ñoo ngi wax mais góorgóorlu rek làmba ngi sa kanam. Mm. peut-être liy ñëw mooy dàq. Euh, naka ngay waajee ak say supporters. waa gis nga ñun ñu ngi waaj comme ni ñu doon waajee. ñoo de 5 tonnes la 5 tonnes ngi doon waaj comme ni ñu doon waajee yeneen seen yeneen làmb yi. <laughs> di waaj ak say mbokk ñu daan àndal. Uh-huh. samay xarit samay papa samay ndijaay. Mm. di woo waa Cambérène yëpp di leen wax combat bi daf ñu ñor data am. fu mu ñaata nga defagum ci xaalis ci musique. combat bi du ma bu ma ko daanee laa laay leeral lépp. lu ma si def nga ci xaalis. ki lamb dafa ma jaral. li toog suma ginnaaw dafa bari boo xam ne li muy fayee ko bariwul boo defee ci combat bi xaalis ba di nga ci génn. ah déggoo ma la ñun tollaguñu fu ñuy amee xaalis si kanam la am ay 4-4. ay kër comme ni gars yi am soxlawuñu nii xaalis. démb bi ma demee stade sedd ba ma jàpp te maa ngi toog di wax. gisoo sama di woo di woo waa Cambérène gi yëpp. di leen wax ñoom ku leen xam si discipline lañ leen xam yar ak teggin. Mhm. di la wax ñu ngi waaj làmb ji bu baax ñoom ñëpp ñu waaj ko ñu ñëw si kàttanu borom bi suñu borom mooy ñu dem si kaw fëgg la Baye Mour Samb mii. Mm-hmm. maa ngi woo Cambérène yëpp di woo sama mag. Mm-hmm. maa ngi woo Papa ngoom doom nday Waly Seck le jeune maa ngi koy woo bu baax baax jëndal na ma trois blocs si combat maa ngi koy woo bu baax baax di woo lës 45 ama demba kaara mbay waa kër Père Ari An nday wëli sama yaay. di ndokkale waa Cambérène yëpp si appel bi ñu jógee di woo mafia yi nekk Cambérène yëpp bu ma limee damay juum maa woo mafia yëpp waa Daaru Cubu di woo sam booy mécanicien yi ñëpp maa leen di woo atelier di woo Baye yi nekk Daaru Cubu yëpp di woo ñoom Sam Ziz yëpp di bëggee sama doom day Valdo bu baax a baax a baax a baax di ko ñaanal yàlla mooy ko ndam le 19 incha allah si kàttanu borom bi. looy tàggatoo. <coughs> waaw ñun dañuy santaat yàlla di julliwaat si yonent bi rek. te di wax lu ñu fi juum rek nañu ko jéggal te xam ne ay ndaw lañ mhm. amaana moom wax mu yegg suñu borom la neex waaye lu ñu wax mu jub rek te ñu xam ne du suñu njàmbaarte suñu borom moo ñu dimbali mu jub rek di woo fukki penc ak ñaar yëpp di woo waa kër Seynaa Limaamu mhm. Ngor waa kër Sérif Wëlu na waa Seex Saad bu wëlu na ñëpp ñu ngi leen di woo Cheikh Siri Boya ñëpp di oo Ngor gépp wakam Yoff fukki penc ñaari di wax ne euh, monsieur le maire bi fi ne nii muy Mama ñu ngi koy woo si combat bu baax soxal nañ taxawaayam monsieur le maire bu fi jógee muy suma maam suma lépp lion noir ñu koy wax Amadou Gueye ati ñu ngi koy woo ministre Abdoulaye Diouf Sarr sama combat bee passé cinq bloc biyee la ma jindaloon bii maa ngi koy xaar si huit daa doomi Farba Ngom bi ñu ngi koy woo ay millions yu bëri lay def si ñun barki alxuraan nit nag boo santul nit doo sant yàlla suñu borom kooku ay millions yu bëri lay def si ñun di sant samay entraîneur ñëpp te di wax ne gars yi départ bi treize heures na gars yi teel a pare treize heures ñu añ ceeb yi quatorze heures ñu yéeg si moto yi ñu yéeg bus yi ñu takk sareet yi ñu taal turaaru yi ñu jëm stade dem noq booy bi ba mu puub tubéyam ñi ñibbi sawaat da nga xam ne nag ba bés ba ab yabaylam laa def loolu mu neex la mun na naqari la. ab lon ngay def ab lam kaa def. yaboy ab yabaylam kaa def yabayab tas par force mu neex la mu naqari la. yaboy moo tax sa tey saa nii. Ouzin maa ngi gërëm Milkzez bu baax a baax di gërëm sama papa bu baax a baax a baax a baax. sama yaay sama tante sama turandoo abu waa atile ñoom saara di gërëm sama booy magandicien yëpp di woo forom ci kanam surtout forom ci kanam. mafia bi may àndal maa leen woo ñoom ñëpp di leen wax ñu teel a préparer mobiliser mm-hmm. ñu dem. maa ngi bëggee sama turandoo bu baax a baax baax moom xam na ma xam nu mu siy jàppee kenn du ko wax. Mm-hmm. milki sës ne nga leer sama mafia bi may àndal forom ci kanam yëpp. Mm-hmm. maa ngi jaale waa Daaru ci bu yëpp Baye Fall yi di leen jaare Omar. di ko ñaanal fi mu tëdd yàlla na ko gënal fi mu jógee. di wax waa Daaru yëpp ñu waaj ñëw ma daan fëgale mi incha allah. di wax waa Cambérène yëpp ñu waaj sam paapa nag du ma du ma jóg si di ko gërëm ndax moom dañ ñun dañ dépassé foo xam ne moom day yëkkati xéwalam di ko jox. Hmm. ñun ñoo war a teral suñ papa teral suñu yaay. te incha allah dinañ ko teral si kàttanu borom bi kii da doon daw combat bi xaalis moo tax mu jël làmb xaalis moo tax mu jël moo tax mu jël làmb ji 700000 du xaalis. 700000 du xaalis. kon yow jot nga xam li ko fay moom. xaalis moo tax nga jël avance bi. laa na ne fay ñu ma sax 700000 si làmb ji. ëpp na ko wala gën na ko waaj. ñun ñu ngi sant suñu borom si làmb ñu ngi siy sant yàlla bu baax a baax. fay ñu dara da ngay rek. ñu ngi siy sant yàlla bu baax. loo sant yàlla ñu koy sant lu ko moom nag maanaam li ko ménager mi du wax. wala ñiy monter combat yi li nga koy wax maanaam ndeysaan man dama koy yërëm après lu bë lu bëree bëree bëri dina ko dégg si ay nettali. du wax ne sama yaay añaa sama yaay jooju ndeysaan doomam ji lil si Sini Wade fi mu tëdd yal na ko gënal fukki junne yoon fa mu jógee taaliba sëñ Saaliw bi fa doon ndaw loo xam ne dafa teel a génn àdduna. kooku lu ma am si bës barki maam Seera Faar moom laa ko jagleel. man jëluma bés may ko sama yaay jëluma bés may ko sama papa lu ma am kooku laa ko may. ngir dafa doonoon koo xam ne dafa sori si man. yaa na ko sunu borom yóbbu aljanay firdawsi. waaw ba muy féexlu si waxtu ñoom sëñ Touba ñoom El Hadj barki maam Serap gis ngeen mbokk yi nii lay deme ci ñoom ñaar nag doyaluñu waaye xam nga lu neex moom daanaka lu doy te li olof Njaay di wax ku dul may boppam moom lu am day jël maa ngi leen di jaajëfal kontaan naa ci yow xam naa ne xiif nga ko moom tamit xiif na la waaye mbokk yi di wax ne. gërëm waay maa ngi gërëm sama sëriñ bu baax a baax mais Jackson maa ngi koy gërëm ndax. maa ngi gërëm sama ma jox ko sama sëriñ bu baax a baax Mouhamed Mbacke leeru sëñ Abdou kooku du ma ko fàtte maa ngi koy gërëm bu baax a baax di ko woo si di wax waa Cambérène autorité yi fa nekk nañ jàppale mburu Cambérène ñun amuñu lu dul Cambérène ñun Cambérène rek moo ñu ñor bu jugee Cambérène la ñuy xeexal di woo ñëpp di woo Mara Cubu bu baax a baax sama ndiyaay nañ jàpp si béy bu baax a baax a baax a baax kii loolu lu may tëjee ak moom di ñaan sama borom ndam si kawam. ñàngoor dofu àll bi ñàngoor dof bi. sa waay yow moom daa tàng de. bul dof. ñàngoor xam nga laa bu baax dofu àll bi ah jaaral fépp fa daan jaar mais bii bëgg nañ ay 7 millions yooyu noonu yow bandi nga cawal ñetti terrain rek dem doxi li ngay dox ñëwaat mooy loolu. maa ngi woo waa Touba bu baax a baax sama waa Gale Touba sama maam ñëpp maa leen woo bu baax baax ñun amuñu lu dul woote ñun loolu ñoom lañ loolu lañ am si ñoom ndax ñoom liñ ñuy defal yow yow mii lañ dul wuyu nag li nga yaakaar du lool de di woo waa Bentali waa sama ndiyaay yi ne foofu waa Touba ñëpp maa leen woo maa leen woo bu baax a baax di leen wax la 26 nañ ñëw ma daan ma daan jëmm ji si kàttanu borom bi incha allah. gis ngeen mbokk yi noonu lay demee ci jàmmaarloo di leen jox dig daje beneen yoon ak yeneen mbër ci Wassare Lamb jàmmaarloo jaa ngeen jëf.